Sénégal ak ci bitim réew ñu ngi leen di nuyu fépp fu ngeen mënti nekk comme ni ngeen ko waxee woon sànq bi nga xam ne ci la ñuy tijji fas yéene nañoo dem ci njabootu ñi nga xam ne moom moo di euh, njabootu maam Thierno Birahim te buñ ko waxee moom moo di njabootu ku tedd ki di Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba euh, Khadim Rasoul ndax mënuñu dugg daaru muxti ba génn fii wane màggal gi te wane wuñu ñi nga xam ne ñoom ñoo di njabootu ku tedd kooku nga xam ne moo waral euh, bis bi tey bokk na ci ñooñu nag Serigne Aydara Mbacke nekk kenn ci njabootu maam Thierno Birahim waaye tam di def liggéey bu am solo ci daarul muxti comme ni ma leen koy faral di waxee dis-moi quelle jeunesse as je dirai quel peuple sera wax ma ñan ñooy say ndaw dinaa la wax euh, ñan ñooy sa avenir u ëllëg te moom mi euh, bokk na ci ñi nga xam ne dañuy def am solo ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di ndaw réew bu Sénégal ba ci sax bitim réew euh, tey jii nag ñu fas yéene séq ak moom waxtaan ci ay poñ yu fasantikoo bokk na ci loolu li waral bisu màggal Daaru Muxti ak itam concept bi nga xam ne moom sëñ Aïdara Mbacke yëkkati woon na ko di concept 244 loolu lépp mu nga xam ne ñoom ñoo nekkee bitim réew te du faral di suivre actualité bi nga xam ne actualité yoonu murid la wala actualité réew bu Sénégal la wala itam ñu koy dégg te xamuñu lan lay lan lay lan lay signifié loolu lépp tey am nañ opportunité pour waxtaan ci ak moom xam naa sans plus dañu koy jox kàddu gi rek mu nuyoo ak mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy bàyyi xel. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu noo ngi leen di siyaare soxna si ci pos pos bi ngeen am ci ñëw teew fii ci makkaan mi. am yittey taatan fi ay kàddu noo ngi sant yàlla ci loolu julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam sant Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul sant Cheikh Ibrahima Fati mi nga xam ne seen ñaari jëmm yu tedd yooyu seenub daje moo waral jataay bi di leen sant di sant mboole seen seeni téléspectateur yi leen di seetaan ci biir réew bi ak ci biti di rafetlu seenub liggéey ci lislaam seenub liggéey ci diine seenub liggéey ci yoonu murit rawatina a ni ngeen di def ci kër yi diine yi ndax léegi-léegi ma di leen suivre di leen seetaan kon noonu noo ngi leen di sant seen jotal boobu tey nuyu àdduna bi yëpp di nuyu ñiy seetaan seen tele bi yépp dara euh, bis bi nekk bis bu symbolique bis bu am taarix ci yoonu murit di daje bi nga xam ne ci la Serigne Touba ku tedd ki daje woon ak maam Thierno Ibrahima Faty ci bi mu jógee ci géej gi dénkoon ko ay dénkaan yu am solo moom maam Thierno sàmmal ko yooyu de waaye tam mbégte la ci lislaam bi yëpp ak yoonu murit ndax Serigne bi bi mu demee ñu bëri jàppoon nañu du dellu siwaat te mu dellu siwaat ci kanam nii loolu yan yëg-yëg la lay def en tant que koo xam ne ci njabootu sëriñ bi nga bokk. sant ci yàlla ndax waykat ba daa koo waxoon moom Cheikh Ibrahima Fati ne su Bamba doon Moussa mu dim Haarona seeni mbir mbir mbir nuroo na waaye la daloon Haarona moom dalul Cerno ndax Haarona bi ko Moussa bàyyee ginnaawam bi ñëwee fekk na sax ñu nekkaatoon ci leneen waaye Cerno moom sëñ Fàllu mooy seedeem ndax moo ne Baye Thierno nu jàngal ban ne ar mu yar nu bañ ne nër mu yeeñu bañ ne jar kon moom mission à accomplir la kon Thierno matal na mission ci loolu waaye la ca mata seetlu mooy ne sëriñ Touba du tànnee bakkan tànn gi mu tànn Thierno wóolu ko rek loolo war naa tax ku nekk wóolu Thierno te defe naa ne mbir mu jub rek mooy jógee ci wóolu Cheikh Ibrahima Fati te kilifa nettali na mane keroog bi nga xamee ne dugg nañu ku tedd ki ci saxaar gi biñ tolloon ndànd la sëriñ Tuubaa woolu sëñ Isaa Jenn ne ko wàccal fii nga wooli ma cerno sëñ Isaa Jenn wàcc saxaar gi dem wooy Cheikh Ibrahima Fati sëñ Abbas Mbàkke maam cerno Birahim moo ma ko nettali nee na keroog bi borom daaru di si ci sëriñ Tuubaa nee daanaka waxtu timis la dañoo ànd lëlu bokk julli timis ñoom ñaar kenn ñetteelu leen ñu bokk julli gee kenn ñetteelu leen ba julli fajar kenn ñetteelu leen doog a génn ñoom ñaar di waxtaane seen mbiri bopp loole nag dajeek tey jii seen ñaari gise yooyu ñu di ko màggal waaye amaat leneen lu ci xewaat ci diine ndax ku ne xam na ne tey mooy nisfu saabaan te nisfu saabaan ci histoire ci lañ defoon tax taxwiilul qiblati ndax nit ñi seen orientation biñ daan julli ñi ngi daan jublu baytul maqdis mooy Jérusalem ci bisu tey bisu suba bi ci la ñu amee sunu borom sant yonent bi muy jël xar kanamam di ko diir ca baytilaal xaraam ci mi nga amoon ci fukki fan ak juróom ci weeru baraxlu kon dafa mel ne bis bi a ah, ñoom daal yàllaa leen tànn moo leen di tànnal waaw ah, loolu xew na ci bis bi waaye dajeeg Cheikh Ibrahima Fati googu ak li mu defal Serigne Touba ginnaawam ba sëriñ bi sax wax nanu ne ci mbégteem nee na ko ndax Ibrahima. soo demoon ma toog ndax li nga ma defal danaa ko def danaa ko man ndax ku nekk xam na nu kër mel ak ginnaaw nu mu mel te sëriñ bi def na ci àll bi lu mat juróom-ñetti at Cheikh Ibrahima Fati moo ko fi nekkal te booba yoonu murit perantal la bu toll ci raam nekk ci diggante ñetti contexte bu njëkk bi mooy bokk yi nangulul woon sëriñ bi bi ci topp mooy ceddo bi ci topp mooy tubaab bi te bii mi fiy bàyyi Cheikh Ibrahima Fati mi ngi am 30 ans. léegi nag ban stratégie yaat ban stratégie la Cheikh Ibrahima Fati amoon ba mën a jëflante ak ñoom ci anam yoo xam ne dara yàquwul ba Cheikh ba Cheikhul Khadim waat loola defe naa jar na màggal ndax yonent bi sax yàlla fàttali na ko ne ko del fàttali ko yonent yi la jiitu woon tey roy ci ñoom di xool ci ñii seenu muñ xool ci ñii seenu mën a julli wala seenu digle wala seeni tere kon dikru daalihiina Eh, tanzilu rahma fàttaliku gaa yu baax yi day wàccee xéewal ak tawféex rawatina nag alamay ni amala xëy ni min alami diin ku mel ne Serigne Touba ak kon loolu moom tawféex ren ci am ak ko di ko xëllantoo di ko bégee te xam ne bu nu ko amuloon fii ci réew mi tamit fu mu nekk ñu jéggaani ko kon alhamdulilah bi ko yàlla indee Sénégal. Hmm. Euh, ñi ngi faral di wax ne Darou Mouhty moom mooy deuxième capitale mouridisme. ñaareelu capitale mouridisme ñu gis Daaru Muxti tamit euh, démographiquement mu màgg génn màgg goo xam ne ñu bëri daf leen di xaw di jaaxal ñu mën koy méngale parfois ak Touba nuroo googu nga jàpp ne mbiri sëriñ bi ak sa maam Thierno chaque fois foo ko xool dañuy nuroo. waaw xam nga sëñ Touba de moom euh, dafa njëkk ci Thierno mujj ci Thierno. te it bind na ne lam yu faarix nii laa fi diqarihi wala fi kibarihi bind na ne lam yu xaalif nii amrun xat nee na musta tàggook man bi mu nekk ndaw ba ni mu nekkee mag te nee na musta mooy sama ndigal lu toll ne ab tomb wala aw rëdd ku musta mooy ndigal sëriñ bi te tàggoo moom ci ndaw ba ci mag kooko da ngay mujj di sëriñ bi sëriñ bi di yow ci ci wàlluk saahir si rek nag laa waxee waaye waxuma sa mbirum biir ma ndax mbirum biir ma ñoom ñoo ko xamal seen bopp te leer na ma ne ñoom lenn lañu ndax sëñ Moussa Ka nee bis ba mu juddoo ba tàkku ser baatam ba Cheikh Bamba daw njëkkante koog baayam ba keroog la maam Mor Anta naan Cheikh Bamba sañaan ga nga na kilee yor yan ba xam naa ne sooy doonay rasulullahi muy sam Aliou mbaa Omar billahi pour xam kon Thierno ban position la taxawee da ngay xool lan la naa Aliou jariñ ci lislaam ak naa Omar ibnul Khattab ndax lee noonu lañ ko tuddee boo doon doonay rasulullahi muy sam Aliou walbatiku ne ko su Bamba doon Moussa mu dim Haaruna seen mbir ak yooyeele mbir nuroo na waaye waxoon naa la ci tàmbali ne la daloon Haaruna ba ko Moussa dénkee yëf ya dalut Cerno moom bi ko sëñ Tuubaa dénkee yoon wi waaw. man parfois damay faral di euh, am ay interview ay mag ci yoonu murit mais euh, li ma ciy jàngate ci maam Cerno mooy psychologiquement nit ku fort woon parce que lu kenn ñemewul woon ci même bi ko sëriñ bi yónnee lettre ba ca ndar yooyu dem jokkalante ak tubaab bi. lu ko ci sëriñ bi wax psychologiquement nga xam ne nit ku foor la woon est-ce que loolu yéen a ngi ko ciy jàngat yéen njabootam. xam nga Cheikh Ibrahim li ñu wax ne suuf su sell mooy génnee meññet mu sell dafa génn ci diggante yaari wayjur yu sell yu laab yoo xam ne ah dañoo am li ñu wax tedd nga muy Cheikh muy sëñ Mor Anta Seli mi leen meññi fa bàyyi ko ci Maaram Mbakke. wet wet la gu laab boo seetaatee way juróom wu sell wa a sayda soxna Faati Isa xaw a nuroo ak Fatimatu bintu Asad dañoo xaw a nurooy mbir ndax ni Cerno taxawee Seydina Aliin ci Cheikhul Khadim way juru Ali tudd Fatima bintu Asad kii tamit way juri tudd Faati Isa ak Asad dañoo xaw a nuroo te la daloon Rasulullahi ci Fatimatu bintu Asad moo dalaat Cheikhul Khadim ci Faati Isa waaye gis nga ne seen yaari way yooyu bokkati jenn maam te fa ñu bokkee ay maam nekk ci famille boo xam ne dañoo nekkoon nit yi diine ñu xamee leen alquran ñaareel bi mu doon koo xam ne famille boobu waa waa ay kokki mu doon fondation bu dëgër Serigne Touba jiitooti ci moom dindi lépp luy tax nit ñàkk ngorom mbaa diineem wala jomam wala aw fitam sëriñ bi da koo dindi ci loolu ba noppi sangeel ko cër yi ba musta dox ci lu xaraam wëlbatiku nag orientel ko boppam yaral ko boppam ba tax na sëriñ bi xàmmeetul woon sax moom lu tàng lu sedd ngir xam gi ko sëriñ bi xamal borom am ba noppi su boobaa moom bu gisatee borom ndar da koy jàppee rek jaamub yàlla bu réer bu mu war a jubbanti te am ndigalal magam ju baax ji Cheikhul Khadim te jàpp ku réere yàlla mënatu la am doole mënatu ta xuuxal ku xam yàlla moo taxoon sëriñ Cheikh Ibrahima Fati doonoon ku dal koo xam ne lu jamono yëngu-yëngu lu mu tartar lu mas a xew rek moom cant la daan jiital ndax dégg nga ci histoire am ñu wax ni gan gu ñëw jamono ak gan gu génn adduna la yemale woon maqaama mi mu amoon mooy lu nit masa dikk tawat ko ko wala nga ko ko te yàlla dogal ko moom day sant yàlla ba noppi doogoo seet fan lay jaar ak ci loolu doonoon nag ku am fit ndax ku ne xam na ci histoire mi ngi ganee jamono poroxaan waaye bi mu ganee jamono poroxaan wax nanu ne way juram da ko gàddu dem ñoom ci dëkki soose yu tudd Jaabakunda ca boori Gambi fa lañ ko dalalee te booba Maba Jaxu Ba moo doon fetal jihaadam jooju ca Paoskoto loole lépp ay asbaab la yoo xam ne mën naa waral njàmbaaram gi ma fi mu cosaanoo ci diine ak yar bi moom ak éducation ak formation te benn rëwu ci Cheikhul Khadim kon mën nañoo jot ci moom fulla mën nañoo jot ci moom personnalité ak dignité ndax bu nu ko tuddee baat bi day saahire waaye personnalité ak dignité mooy stratégie bi mu amoon ndax adon ila sabili rabbika bil xikma wal mawisatan xasana wa jaadilum bi lati ahsan stratégie yi pexe ya melokaan wa doxiin wa yar ba teggin ya lépp Serigne Touba la ak fidwa lépp Serigne Touba la moo ko mooñee noonu tarbiyaa ko noonu comme ni uude bi di jëlee aw der génnee ko ci xar mi jëfandikoo ndawal gi defal ko li ñuy wax at at tanzifu defal ko li ñuy wax ad dabq defal ko li ñuy wax at tajfiifu loolu boo ko defalee aw der boo ca noppee di ko mën a jëriñoo Serigne Touba foofu la jaarale Cheikh Ibrahima Fati waaw. jërëjëf xam naa buñ ci dee wax du jeex ndax li nga naa ni bëri na trop mais euh, bëggoon nañ nga ñëw ak ñun ci concept 244 euh, lan moo ko waral ak lan moo tax nga nga xalaat lu ni mel pour ñi nga xam ne xamaguñu ko. waaw kooku day euh, day lu nu fi fekk. ndax danoo ñëw fekk suñu maam nekk ay duaat jëkk a xam sax ñiy woote xuququl insaan muy droit de l'homme ñoom ñu gën leen a maîtriser lan mooy aqi doomu aadama te aqi doomu aadama weesuwul nga xamal ko boppam xamal ko boroomam ñu xamoon ne jamono day ñëw ak nouvelle technologie bi ak ni ñi sëñ Tuubaa di war a njëkkante ak ndaw ñi ñu jàpp ne war nañu bàyyee leen internet ak yeneen ak yeneen ndax léegi dangay doon borom kër di yar sa njaboot wut saw yat toog ci sa buntu kër yor sa kurus ak sab kaamil doo gis kenn génn nga defee ne kenn rëccagul te fekk internet a ngi ci biir kër gi ñuy am ay fréquence di copie ak di tricher yeneen i jikko ak yeneen i melokaan yoo xam ne Occident ñoo leen koy jox su boobaa sa doom day xëy rek di la jaaxal ci biir kër gi te fekk ne man naam mi ngi fanaan Japon wala Chine wala États-Unis wala mi ngi fanaan Amérique par par l'internet parce que day toj day toj miir yi daaneel fenêtre yi dajji bunt yi yow nga ne ci mbedd mi di garder sa kër kenn du génn ndigal loo joxe ñëpp nekk ca te bu ñu wéetee ci néegi yi ñu ngi ci portable yi ñu ngi ci leneen est-ce que dañ leen koy tare wala dañ leen di former bañ xam naka la ñuy jëfandikoo seen jumtukaay ak seeni i xam-xam ci biir adduna ji du yàq seen diine léegi nag ñun ñu teeloon a gis ne inxiraaf li arab di inxiraaf am fetteerlu walla jàddug ndaw ñi dama ne woon anna sababa xaddin xarafu inxiraafan shadida wa yaxtaajuuna ila man yuradduhum ila alhuda wal istiqaama wa xayru sabilin li raddihim huwa at tarbiya wa tazkiya jilin min al ajyaal فيلعب ذلك الجيل المربى المرقى تربية المنحرفين هؤلاء ndaw loo gis mu yàqu rek moroom jaa ko yàq ndaw loo gis mu yàqu moroom jaa ko moo koy jàngal min xaysu taddaxiin wal idmaan wal ixtisaab wa xayri dalik ñoo leen di jàngal tux naanum sàngara agression lu mu mën a doon su ko defee nag faw nga former kiy yàq kiy yàq da koy ñeme former ko ndax saabu du daw tilim te boo seetloo léegi nun ñi ñuy woowee saabu yi lëlu bi ak tëju bi mooy faral di indi lu bari dañoo war a wàcc ci mbedd mi ñeme tilim ji affronté ko waaye dañuy ragal des fois ñu ne sëñ diw am na taalibey bandi te fekk na yow kooka amoon na nday am baay soo ko libéré woon ak ndeyam ak baayam mu ne ci lu ko soob waaye bi mu ñëwee ci sëñ bi ndeyam ak baayam supprimé nañ ko moom bokkatul foofa léegi buñ koy tudd sëriñ bi rek lañ koy tudd waaye sëriñ moom na jàpp ne saabu la moom du daw tilim li koy indi mooy ab sàmm la te sàmm du jubóog till li ñu am mu amaratu roa yi ma addi abi maanaam sàmm du jubóog till ndax sàmm bu jubóog till rek ah, liy tooy ci jur gi lay bàyyi ko te nun ay sàmm la nu taalibe yi ay ay ay ay ay ay ay ak jur lañu li ñu def mooy teel leen récupérer yar leen jubbanti leen orienté leen former leen formation boo xam ne bu nu noppee ni uude bi wanee xereñam ci der wi ba defar ci dàll ak leneen lu ñuy jariñoo euh, euh, méta menuisier métallique bi wan la xereñam ci weñ gi menuisier bois bi wan la xereñam ci bant bi cheikhul murabbi bi nga xam ne sa ruux lay yar ak sa jëmm ak sa melo noonu la war a wone xereñam ci jaam ñi su ko defee nag nun sunu mbir mooy jubbante ndaw ñi jëlee leen ci drogue jëlee leen ci agression jëlee leen ci jël yëfi jàmbur booy seetaan ca ginnaaw doon nga gis taalibe boo xam ne am na ñu ma téléphoné ba fu ne tey jii moo taxaw nii sama ginaaw di upp ta ñi gën a tuuti ci ñi sëriñ bi wammat ba xëcc leen ci njubug yàlla gi te jaaree ko ci sama loxo moom ci ñi ci gën a tuuti ci la bokk ndax lu mu gàtt gàtt ëpp nañ juróomi téeméer yoo xam ne. koo ne ci nangam mu ne dama daan jël yëfi jàmbur wala dama daan def dama daan def yoo xam ne bàyyi ga moo tax duñ man dañuy tegginal ba duñ mën a tudd sax kenn ku ci nekk fam jaaroon ak la mas a def te loolu sagub yoon wi la sagub lislaam la te loolu lañ doon yaakaar ci doomi soxna jone mooy fekk mbub mu tilim mu kenn mën a tuta jariñoo nga fóot ko cuub ko defaraat ko ba koo ko jox mu mën koo sol waajee ko muy mission boo xam ne dañu koy amal ci gox yi di ko amal ci prison yi ak détenu yi mu doon loo xam ne musuma ko sax médiatiser ndax dama daan wax ne boo médiatiser nit ñi gëmatuñ ne nit a ngi defati lu baax ngir yàlla ndax nit ñi dañoo gëm ne lu nit yëkkateeti di ko def intérêt ngi ci ginnaaw moo xam politique la wala leneen comme nag gëmatuñ ne am na lu nit def te yàlla tax léegi nag nga toog rek bu waree feeñ suñ borom dana ko jël di ko wane di ko tas ba mu dem ci amaakin yëpp. ba ku nekk war caa jot ndax nun du lu nu sos sëñ Tuubaa mi ko lu ca dib yool moo cay ëppale ndax moom moo toqi ñi ñu toqi ña leen toqi kon day mel ne lii nuy doxal moom day mel ne jaan ju rek ñu dajee ci pénc mi naan lu tax muy màtt laa xarwa fii daalik loolu moom du kiimaan du kiraama ñu ne sëtub Cerno wala sëtub sëñ Tuubaa mi ngi nekk doxaat boo xam ne day taxaw ci manaabir yi di kaas xuququl insaan wala xuququ nangam wala xuququ nangam loola laa xaro fi dalik an yahtama xafida cheikh il qadim aw cheikh ibrahima fati bil makarim al loolu nekkul kiraama nekkul sax miracle waaye nag xëy na nii ngeen def moom lu lu lu lu am solo la waaye daal mbir la moo xam ne ni ma la ko mën a waxee daal mooy 244 boobu nga junj léegi lu siiw la sax waaye nit ñi dañoo baaxoo ne ci jamono boo xam ne il faut nga indi benn sax xasana boo xam ne meeb lay doon rek pour récupérer nit ki ndax cardiologue bi xam na yan garab ak yan méthode lay jëfandikoo pour egg ci xolu nit ki pour mën koo réparer ophtalmologue bi kazalika cheikhul murabbi bi tamit bu janoog nit ki day xam li sikk ci moom ak li ayib ci moom ak ban stratégie lay am ak ban maw maw'isat lay am boo xam ne dana mën a ñëw jël ko ci biir lëndëm googu mu nekk indi ko ci leer gi te moom sax du yëg bi mu jógee ci lëndëm gi day jekk rek yëg yëg ne leer moo gën lëndëm te leer sax moo gën a baax lëndëm waaye du yëg sax kañ la jógee ci lëndëm ba tàbbi ci leer loolu yëpp ay stratégie la yoo xam ne xëy na du neex a faram-fàccee waaye daal Serigne am na lu mu ñu ci dimbalee waaw. chiffre bi 244 lan moo ko andi. waaw chiffre mooy li da ngay dégg bu yàggu rek dégg ngeen M23 ak lan ak waaye lii yàlla def na moom am na 15 ans parce que defe naa première kilifa diine bi njëkk di wax ci ay chiffres defe na euh, ñi ko njëkk a def bëriwul donte fekkoon nañ fii sax gars yi di dagg ay xawaatim ak di def ay talaasim ak parce que loolu lasaraar la moom loolu moom bunt bu njëkk bi la rek loolu zahir la waaw xaatim ak yooyu moom yooyu moom zahir la moom man du ma ko tuddee baatin parce que boo ci jommalee mathématicien bi mu wan la moom it pexeem bi mu am ak feemam yi mu yor waaye dañ cee jublu woon ndax dama damaa ñëw ay dara moom xam nga ay dara mooy ay dara boo ci dollee Mbàkke rek da lay jox deux cent quarante quatre waaye jubluwuma ci woon loolu damaa jublu woon a def rek vingt quatre plus quatre vingt quatre plus quatre dafa may jox égal Touba vingt huit su boobaa day jur texe ma ne kon nañ ko tuddee parce que boo tëboon ne. nangam 28 day yomb ba ku nekk waaye boo nee 24 plus 4 égale 28 boo leen jële rangale ne day jox 244 far muy ñëwaat di la indilaat ay dara mbàkke bu defee nag loolu dana sawarloo taalibe yi mu amaat tamit yeneen mbir eh, yoo xam ne xëy na mi ngi ci biir waaye foofu lañ ci mën a ndax boo jëlee allahu jël latifu jël wahaabu jël jaibu soo ci doolee Touba rek mu jox la 244 day mel da la jox est ouest noor sud nga jël Touba def ko ci centre bi te Touba mooy garab gi nekk ci digg àjjana boo ko defee ci centre bi ñeenti tur yàlla yi boo leen adadee boolee ko Touba 28 rek mu jox la 244 léegi nag mu nekk slogan rek boo xam ne dañ koy jël pour pour pour xëy na mën a yegg ci jeunesse bi parce que booy xool damay fréquenter rappeurs yi ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ndax boo demul seeni i mustawa ak seen i amakin doo leen mën a dimbali. faw nga dem ci mustawa ak amakin yi li yashula attaamulu maahum lool nag il faut nga am esprit bu ouverte boo xam ne euh, doo nekk di déng-déng ñaareel bi da ngay jaar ci tarbiya ñu mooñ la ba nga ñor doog a dugg ci tarbiya nit tarbiya du caagéenu da ngay xëy rek na naa defar nit da jaar ci defaru kun kun kun defar defar la ba won la yoonu defar su boobaa koo jël di ko mooñ doom ba du doom ba du dijj ba mu ëpp du sew ba mu ëpp yow comme soxna nga di nga xam ni defaree cere noonu mooy ni nga xam ne mooy di am solo ñun dañoo tar bi sunu wayjur wu góor di ko liggéeyal ba mu gërëm ñu ci lu biir adduna sépp euh, wolof nag day wax nit bu ne sama baay gërëm na ma euh, da ngay xool da ngay xool rek ci sa xel rek ci ngay xamee ndax ngërëm la wér na am wérut Ah, waaye daal fii laa liggéeyalee doomi na moom muy sama baay bam na ma yàlla gërëm na la yonent bi gërëm na sëñ Tuubaa ak Thierno gërëm nañ la gërëm naa la loola nag maa ngi ciy sant yàlla bu baax ngërëm loolee mu ma joxoon ci teeloon a bàyyi ceex gi sax mujj mu jox ma sareet di ma root loog di ma bay loog lu ne ba bari na ñooñ sax xëy na ci mbubb su woyof soo su taxoon na eh, bu nu xew xewlee maanaam sax duñ la ko wax ndax am na ñooñ seenu xew soxla wuñ fa borom bu mu woyof dañuy soxla borom poos bu diis ak borom bu mu xaw a xaw a xaw waaye daal jot nañoo jaar ci marxala boobu danañ am yaqiin nag yaakaar ci ne ku ñëwati nekk koo xam ne da nga wàcc yoon pour jaarale la ca dana yomb ndax xas nañu maîtriser loolu. Ah, loolu am solo la sëñ bi say wax bu ñu koy dégg philosophe nga mathématicien nga <laughs> yooyu yëpp dañ koy jàngate ci biir ci biir uh, wax ji eh, yaakaar naa ni ndaw ñooñu pour nga pour nga jubbanti leen. nekk loo xam ne lu yomb la day aajowoo sacrifice bu bu bu bu rëy rëy presque kenn du la gis ci yenn eh, noo ko mën a waxee comme li nga wax Sénégal boo yëkkatee dara ñu ne dara moo tax muy def dara yow yëpp kenn gisuloo ci ngay ngay travailler dans l'ombre daanaka ci ci ci ci kii bi ñi nga xam ne ñoo yëngu ci milieu information yu ne mel daanaka rek ñoom ñooy xam xam-xam boobu ne yaa ngi liggéey liggéey bu am solo bi ngay def loolu yaakaar naa loolu raar la ci réew bu ci réew bu Sénégal résultat yi nga ci jot am ndax ndax ndax satisfaire na la. waaw waaw sant nañ ci yàlla bu baax ndax yàlla def na ne léegi sax dañuy dem ba ma fekk koo xam ne aw wëyuloo di jégglu ci kàddu googu waaye nag la la xayo fi diin xam nga diina moom waaw euh, damay fekk comme ne wëyu la woon woo xam mas naa def ñaawteef wu ne naan sàngara euh, nekk ci lu ko sooboon nga fóot ko defar ko bu mujj def ko cheikhul murabbi am na nag ku demoon ci sama wenn way jur ne ko ay dara mbàkke day seexalaate rek waaye way juroo da ko tontu ne ko mbaañam ñami seexal am na ku leen di topp mu ne patt mu ne ku mën na def ku mënul na bàyyi rek waaye seexal ñu bari dañuy jàpp ne buñ nee sañ diwa ngay seexal dafa am lu muy jaay fekk ne gis nga tubaab yi fi nekkoon depuis 1901 bi ñu faatoo fetal yu yàgg yi ñu doon liggéey seen sët yi bi ñu ñëwee léegi ay bomb la ñuy liggéey ak ay missile yoo xam ne buñ dekkalaatoon seen maam yi buñ ñëwee dañu gis ne seen sët yi mujj a juddu sax ñoo gën a efficace euh, euh, maam ya fi jaaroon léegi nag pourquoi noonu nu war leen a affronter ba noppi kenn nangu ca doon maamam baabaayam damay jàpp ne jaan day matt ba léegi parce que baayam ak ndeyam da ko daan def lu tax nag nangu woo matt moo tax ma la ne inxiraafu sabab bi munta ñàkk nga tarbiya taskiya jiilin minal ajiyal faw ci ñi jamonoon te gone yi nga defar ca ñu mel na ñoom sànniwaat leen ci seen biir parce que ñooñ ñooy pion yi nga xam ne tey jii kiic sama ginnaaw wax na ma ne man sama yàqu manoon naa indi lu bari ndax dama kàccooroon ba pare gone yi ma bëgg bari léegi imagineel nag ki kàccoor te ñi ko topp bari ñaata kàccoor la mën a créer kon kooku boo ko defaree ba mu jub ñaata la mën a jubalaat su boobaa nag boo ko defaree ne ko seexal naa la du question da ngay am xaalis seexu tarbiya ngay nekk seexul mu rabbi ngay nekk su boobaa da yar nit ki di ko orienté bu génnee nag akum mbubbam ñu ne ah gisal sëñ diwa ngay seexal rek fekk ne wax dëgg yàlla bu cerno dee seexal ci yoonu murit juróom-ñett fukk ak lu topp boo ñëwaatee ñu ne defar nga ni seexal ko dañoo waroon a ki nga defar ba def ko seexul murabbi ndax famille dañoo nekk milliardaire wala ndax da ngay séenu ci moom koom wala dan koo fekk foo xam ne musta am sax wërsëgu mil francs par jour nga defar ko ba mujj mu nekk ci barab di fóot ay moroomam loolu kon satisfaction la ci question bi nga ma parce que wolof ba dafay léeb ne boo suuree da ngay yafal lu mel ne yow boo suuree da ngay fas yafal lu mel ne yow léegi loolu mooy waa ji jàpp ne suur na wudd aw fas ci wanagam ba ku ko gis xemmeem ko su boobaa duutu wax ñi koy laaj waaye day bàyyi li mu yafal rek mooy tontu am naa ci satisfaction boobu ci des mooy am nañ ay daara yoo xam ne cheikhul murabbi bu ne buñ la yóbbee ci gox dañuy bëgg fa nga nekk nga def fa daara joo xam ne koo forati foofa fa nga koy denc di ko defar ba mu nite su boobaa nag day laaj patience ndax am na ñoo xam ne bu ñu ñëw ñoog dof duñ soree parce que nit bu fekkee da doon jël fi jàmbur wala muy def ay crime wala di def yu ñaaw a ñaaw bu ñëwee daanaka moo ko dafay yem da ngay mel ne kuy faj dof léegi nag ki yàkkamti da dul bàyyi xel ne hôpital saa boo demee daje fa kuy dugg ak kuy génn ak ku jëlee ko ci garabam mais muñu munuñoo muñal nag léegi guide spirituel bi nga xam ne moom maîtriser na loolu léegi boo ñëwee yow gis ko say rek nga ne wërta say te fekk day faju dof su ko defee daara yooyu am na Kër Masaar amaat nañ fa daara yoo na ne fan yee sa ñàkkul déggoon ngeen ci ay coow sëñ ba jaay na ko nangam ak nangam waaye comme ñiy wax ay citoyen lañ comme man dama jàpp ne du ñoom laa amal information état laa waroon a amal information te état moo ñu dàq informé wu ñun ñëpp c'est parce que état bu Macky Sall soxla woon a xam tey jii kan laa nekkal ci salle bi defe naa fekk une heure de temps mu xam ci lu ko leer kon defe naa état ëpp ñëpp information te damaa waxoon ni Touba ak Daarul Mawti gi ma dëkk soo ñu ma fee fekk benn mètre bu carré sax ma di ko occupé parce que xam naa ne domaine national la ñu wax. mais da ngay am autorisation d'occuper wala wala nga am bail wala nga am titre foncier yàlla def nag am naa ko ci këyit yu légal tegalewu ma fa benn birig ak moroomam mbaa ñu def fa lenn loo xam ne du yoon moo jënd jël aw këyitam bind ca légaliser ko ndax sëñ Touba ñu jàngal loolu sëñ Touba amoon na doole joo xam ni ak melo woo xam ne bu ko neexoon bañ a tiitire Touba Touba gii ginnaaw nun sunu yaakaar yëpp fa la nekk mu nekk titre foncier loola kon Touba dañuy jàngal bépp taalibe bu ajooti ci ñoom lu muy def na ko teg ci dëgg ak ci yoon ci ak ciw këyit rawatina nag nga bëgg a nekk patriote bëgg a nekk citoyen boo xam ne modèle ngay nekk waaw kon loolu maa ngi ci dalal xelum taalibe yi ak jullit yi ak ñu baax ñëpp di leen xamal ne kayit yu leer nañ ñi la yoo xam ne ki fi jëkkoon a nekk di Ablaye Wade gisoon na ko kii fi nekkoon di kii fi nekk di Macky Sall toog naa ci ak moom man moom ak sëñ xaadim sama rak ak yeneen kilifa ma yëkkati kayit yi ñu am luñ ci doon waxtaane projet yooyee ma amoon tamit ba fii may wax ak yow maa ngi koy réaliser amu ci lenn lu ñu dévier mu jëm fu mu warutoon a jëm dëkkuwaay lay doon ak jàkk ak école bala ma defar nag fenn fu may yóbbu kenn mu di fa jàngee damay defar fi may dëkk man ba noppi su ma noppee defar. fi gone yi di jàngee doo ko defar jaamukaayu yàlla bi ndax boo amee fooy jaamoo yàlla te bu tawee doo fooy seeloo day doy waar moo tax barab la boo xam ne jaamukaay yàlla lañ fay def muy jàkka insha allahu ak fu ñuy jàngalee alxuraan fi ñuy jàngalee moom tàmbali na sax njàng maa ngay dox eh, li coow li bari bari tamit ña ma dëkkal ca gox ba ma dëkk wax dëgg yàlla dégguma fa kenn ku wax lu ñaaw jëm ci ay dara muy unité 2 boobu ma dëkk ñëpp rafetlu liggéey bi bu ma ne ñëpp juum de waaye ñi ci ëpp ndax xale yi amaloon nañ benn pétition boo xam ne maa leen ko sant ne leen dugg leen ci kër yi ngeen di laaj ndax dama siq ak ñoom lu ñaawam déet bi ñëwee rek ñoom indi nañ deux mille trois cent soixante-dix-huit signatures yoo xam ne ca gox ba lañ ko amee du sama délégué de quartier du ñëma dëkkal ca gox ba koo xam ne yëkkati na kàddu gu ñaaw jëm foofa ah, nit nag moom noonu ak àdduna ànd waaw jéggal naa leen bu baax lool laa waxoon journaliste ndax ëllëg yi si biir seeni doom mën nañoo dem ba nekk taalibe sëñ Touba moo tax du ma leen topp duma leen def dara. jërëjëf sëñ bi xam naa dañuy dese ci wàllu waxtu néew na yan kàddu ngay tëjee. xanaa di nuyu senegal nuyu jullit yépp ak kilifay diine yi di ñaanal kilifay diine yi ñu réussir réussir seen mission. ak kilifay aada yi di ko ñaanal aalam islaamiya bi yëpp bàyyiwunu kenn ak seen téléspectateur yi nga xam ne ñi ngi soxla lu mel nii di ko taatanlu di nuyu ñëpp tey jéggalu lépp lu rafet ci kàddu yi amoon naa yéene mu gën a jekk waaye lu ci yàqu tamit nu xam ne nun as taalibe su feragul ijji rek tey jéem di ñaan suñu borom mu suqali télé bi ba mu yàgg fépp ci adduna bi ndax comme diine rek ngeen di wone ak di ko siiwal ndax am na ñuy wone leneen di ko siiwal kon nag yéen bu ngeen jógee di wone diine di ko siiwal dañuy ñaan suñu borom mu dolli leen kàttan dolli leen a jàppale ba ngeen am réussite totale ci mission bii nga xam ne Cheikhul Khadim moo leen ko jox ngeen di ko missionnel ci biir l'islam di nuyu Sénégal gépp di ñaanal réew mépp jàmm tey jéggalu ñi ma doon déglu ak ñi may seetaan ñëpp ci lu ci yàqu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf mbokk yi yaakaar naa ni euh, waxtaan bi euh, déglu ngeen ko ak xel waaye tamit déglu ngeen ko ak seen biir xol li li nga xam ne nii sëriñ bi yëkkati ne ko ci ay kàddu lépp yaakaar naa ne njariñ la loo xamante ne ni dafa jëm euh, ci taalibe yi waaye itam njariñ la loo xam ne moom en tant que citoyen waaye en tant que sëtu sëriñ Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim en tant que sëtu ki nga xam ne moom maay maam Ibrahima Faty euh, lu ko war la mission am la mu war koo dox ci ñi nga xam ne mooy taalibe yi ba tax mu yëkkati li nga xam ne moom moo di mission 244 nekk lu am solo lu fës loo xam ne dégg ngeen. concept bi nga xamante ne ni moom la moom la wax lépp nekk ci loo xam ne njariñ la lépp loo xam ne nekk ci li nga xam ne avenir la boo xam ne daf koy bâtir daf koy tabax euh, ngir jëmale réewum Sénégal kanam ndax yaakaar naa ne jubbanti benn société bi rek mi ngi mel ni nga jubbanti société yëpp te yaakaar naa ni euh, xam naa ni tuddul lim bi nga xam ne jubbanti na ko sax mais xam naa ne kenn xamul nu mu toll ëpp na ay junni junni junni loolu bu ci defoon rek. bu defaroon benn nit rek yaakaar naa ne doy na rawatina bi nga xamee ne ay liggéeyam lépp yëngoom ak daram lépp ci loolu la koy ci loolu la koy def kon ñu ko ci sant bu baax di ko gërëm en tant que citoyen kenn ku nekk sa mag mën naa nekk ci ñooñu sa rakk mën na ci nekk sa cousin mën na ci nekk kon yaakaar naa ne mu waroon kenn ku nekk ci ñun moom mu jóg gàlloo mission boobu kon ñun ñëpp amee lañ ko cant ak ngërëm yaakaar naa lii rek lañ doon séntu ci moom buñ nee sëtu maam Thierno Ibrahima Fatiga comme ni mu ko waxee jaan dafa war di dafa war di màtt jëlee lañ ci moom sax ay ay ay leçon <laughs> morale yu nga xam ne euh, yaakaar naa dina des ci ñun ba faaw leen sant bu baax leen gërëm yéen ñi ñu bàyyi xel ci biir réew bu Sénégal ak ci naa ni beneen yoon incha allah dinañ fas yéene di séq ak moom yeneen jataay yu gën a yaatu ba dem ci kër yi nga xam ne ay daara la ko mën tuddee fu ci mel ne kër Masaar googu ak feneen ak feneen ginnaaw màggal daaru di leen gërëm bu baax leen dig daje beneen yoon jërë ngeen